Bonjour, euh, chers téléspectateurs. Euh, on vous dit bonjour et on vous dit bienvenue, chère presse, chers euh, membres de parents et chers enfants qui sont là présentement. Alors, on se présente, notre association s'appelle CADH, Communauté de l'ambassadeur des enfants handicapés. On a organisé cette journée de consultation gratuite dans le but de sensibiliser de, s'entraider et surtout d'assister entre nous-mêmes. Parce que les droits que les enfants, euh, que les enfants normaux ont, c'est le même droit que les enfants handicapés ont. Donc c'est dans cette lancée qu'on s'est tenu pour faire cette consultation, car avant tout c'est la santé. Et du coup, on a organisé euh, cette journée pour faire la consultation et aussi d'offrir euh, des médicaments qui sont nécessaires. Euh, voilà. Lieu de consultation ici au foyer des jeunes en face terrain Yikini. Voilà. Comment vous appelez Moi, je suis euh, la présidente Fatima Diallo. À côté, il y a Askia, vice-président, et Madame Diallo, euh, communauté, communauté d'organisation et SADA. pour plan des pour l'association Hmm? Bon, les plans d'action, c'est ça concerne les, le, handicapés. Voilà, tout, d'abord, on a, on a un panel hmm. euh, dont, les, dont les parents des enfants handicapés y sont. On les a recensés plus de 50 enfants qui devront faire cette consultation-là et qui devront aussi se bénéficier les médicaments nécessaires qu'il faut. léegi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di rafetlu en tant que parent en tant que presse en tant que acte humanitaire tey CADH mooy communauté de l'ambassadeur des enfants handicapés di œuvre li nga xamante ni mooy xale yi nga xamante ni ay way laago lañ ndax droit bu ñu am xale yi droit bu ñu am moom la aussi xale yi handicapé yi am parce que ñoom ñëpp benn lañu ñun ñëpp fa yàlla lañ léegi nag tey dañoo amaloon journée consultation bi pour ñu saytu suñu suñu yaram aussi ñu mën leen joxaale aussi ay garab yi nga xamante ni moom la ñuy soxla ci seen gu yaram ci kaw loole aussi am nañ yeneen activité sax yu ñu prévoir lu ci mel ni ku ci nekk am li nga xam ne moom la ñuy wax carte de sens d'inégalité bi nga xamante ni waylaago bu nekk war nga ko mën a am nga mën ci bénéficier wu li nga xamante ni mi ngi jóge ci nguur gi yow nga mën ko yelloo man maa Fatima Diallo présidente CADH bi sama juste à côté vice président Askia Touré Madam euh, madame Diallo ak Sada ñoom ñoo yor communauté organisation bi am na aussi yeneen membre yu nekk si biir comme secrétaire Virginie am nañ aussi yeneen membre ñi nga ku ci rek ak euh,

hôpital té buñ leen dañ leen ñom seen déplacement yombul té ñepp xam nañ ne aussi jamono aussi neexatul donc pour ñu wàññi leen sax ben charge bi ñu pourquoi pas ñu def consultation ñu ñu dans le sens ñu mëna a euh, dimbalante suñu biir en tant que en tant que nit ak nit en tant que yaay en tant que aussi euh, parent ah merci maa ngi aussi. aussi. Salam aussi. au Sénégal Salam alaikum wa Massar donc nous ngi leen di nuyu ci mouvement bi et CADH la communauté de l'ambassadeur des enfants handicapés donc j'ai à ma gauche la présidente euh, madame Fatima Zara Diallo et madame Diallo et, M. monsieur qui est là à mes côtés qui sont quelques membres euh, du mouvement donc comme nous ñu dit, nous sommes au niveau du foyer des jeunes pour amal fi consultation gratuite mais pour les enfants handicapés voilà donc euh, depuis 9 h ñu ngi ici, inshallah nous dinañ aussi ba 14 h donc comme li ngay wax euh, pour ñu une activité bi euh, c'était un peu difficile parce que aussi c'est une nouvelle association pour nous mettre en place par les moyens de bord membres qui nga ñoo panel cotiser mais aussi am nañ ay quelques bonnes volontés volontés yu si jàpp comme ni ko présidente waxee donc mun naa wax ne loolu noonu quelques sommes yooyu noonu la ñu dajale parce que ñun dañoo jàpp ne ñi nga xam ne handicap lañ yor dañu war a jàpp ne ñun ñëpp ñoo yem parce que yàlla mooy dogal te nit ki tant que yaa ngi dund rek handicap weesuwul parce que nit mën nga génn léegi jël moto wala nga jël oto ndeg yàlla tere suyeti wuñu ko mais nga mel ni ñoom donc ñu xam ne ñu ñu ñu bañ leen ignorer bañ leen xam ne si ñun lañ bokk di leen jàppale ci logique boobu noonu lañ nekk parce que ci CADH li tax ñu taxawal ko loolu rek la œuvre sociale ak humanitaire xam ne nit ñëpp a yem ñun ñëpp ñoo yem donc mën naa xam ne loolu daal en résumé pour ma bañ a guddal tellement loolu moo nekk bidu assemblée bi. voilà seen loxo jotul sen ginnaaw manam dañu manqué cër wala seen i xel wàññeeku. voilà loolu amul tey wala dafa bokkul ci programme bi. si bokk na ci programme bi parce que lolu so xolé gouvernement du Sénégal lancé woon na bu yag ben avant même ce nouveau régime là parce que carte d'égalité des chances bu ñu waxee si le régime sortant ñoom ñoo mettre mettroon en place. mais c'est trouvé que euh, couche yi nekk fii surtout ici comme pay ñun Kër Massar lañ nekk ñu ci bëri xamuñu won fu ñu jaar bu am kayit yi euh, par la voix de présidente bi tey di Fatima. am na parents yu bëri moo leen sollicité ànd ak ñoom dem bañ am kayit te képp koo xam tamit am nga sa doom mu nekk handicap ñu ngi lay ñaan nga jege euh, association bi di CADH boo gisee ak présidente bi dina la tegtal ci yoon nga mën yoon yoon nga mën a jaar ba am ci ndimbal googu nga xam ne képp kuy handicap dañ la koy jox pour que même droit yi nga xam ne avant yi moom lañ am te nekkuñ ay handicap sa doom mun ko am loolu bu ñu jéekoo ak présidente bi rek incha allah loolu yëpp dina am. dañ leen

dañuy collecter rek dem ci bonne volonté yi loolu tax sax may profité fii di lancer un appel képp koo xam ne nii tu es dans le département du de Kër Massar wala nga nekk sax au niveau national ou bien international da nga mën a jàppale association yi nga xam ne bépp buy œuvrer ci côté social ak humanitaire moo la ñor ñu ngi lay tàllal suñu loxo pour nga ñëw ñu ñu ñu signer benn partenariat parce que am nañ projet yu bëri yu ñu war a réaliser mais souvent dañuy am problème mu xaalis parce que xam nga dëkk bi nu mu demee rek day xaw a kii moo tax walla souvent mais en tout cas ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ngeen wax autorité yi nekk fii ci Kër Massar yi. bon euh, amul benn accompagnement boo xam ne def nañ ci seen activité. bon c'est vrai mënuñu wax ne amul accompagnement mais njortu woon nañ ëpp luñ gis tey. parce que tamit comme si dëkk bi lañ dëkk ñu xam comment ça marche les communes comment ça marche les départements njortu woon ne liñ fi gis tey ñu gis lu ko ëpp mais tamit mën nañu wax ne c'est un commencement c'est un début. Euh, Lamine Diankha donc aussi une euh, activité à CADH pour les enfants handicapés Nous avons des enfants handicapés ont besoin de soutien moral mais aussi physique et intellectuel donc nous avons moo euh, bañ aussi pour euh, soutenir sur ce plan merci exactement exactement parce que nous xale kese moo ñu ñoral euh, en tant que directeur d'une école. donc euh, école privée Les Bâtisseurs ici à Kermassar, donc Kermassar Nord. donc près de Medina Ganassar. voilà donc bañ ñu ko aussi en tant qu'acteur nous dañuy bàyyi une activité ñëw pour jàppale aussi suñuy xale. Euh, handicap que donc tu as besoin ces genre de soutien que je viens de citer un soutien moral soutien physique mais soutien financier pour donc je ne peux pas soutenir les handicapés. Non, c'est toujours possible. Nous, aussi, on va tout laisser pour venir les assister, les soutenir quand même. yaa ngi wax ci milieu scolaire nga nekk. te gis nañu léeg-léeg bu ci ëppoo. Hmm. xale yi dañuy nekk victime foofu pour assistance bi. Hmm. Euh, du am assistance boo xamante ne war la muy enfants handicapés. wax nga dëgg. wax nga dëgg parce que parfois dañ leen di day am benn sous-estimation. Hmm. wala benn euh, genre écart buy am par rapport à certains gens qui vont regarder ailleurs maanaam lu leen di gisee. du bokk ak benn xale bu nga xam ne il est bien important wax dëgg yàlla dara manqué wul. physiquement il est comme ça il peut venir à l'école des gens normal di comprendre normal beaucoup de gens bu nga un handicap mental bu nga beaucoup ne bu classe rek da ngay sentir ne kii gens qui donc kooku assistance de la part des directions de la direction mais aussi des enseignants loolu dañ ciy am solo aussi lancer un appel pour tous les collègues di ciy un xel di assister ces gens d'enfants parce que jàngale yomb na bon mais jàngal ku nga xam ne moo tële loolu mooy dëgg-dëgg jàngale quoi voilà. ñu ngi doon gis association bi di joxe carte est-ce que yooyu yow tey sa école nemmeeku nañ bokk nañ ci li nga xamante ni xale l'enfant handicapé. waaw exactement madame mu wax na ma ko mais aussi ba ma ko waxee nee naa ko tout à fait moi je suis aw ma ci benn problème ak seegul nag bon mais ñu vraiment ñu ngi ci ci taxaw nañ ci incha allah rabbi danañ ci am quoi. loolu y' a pas de problème. effectivement événement bi dafa doon événement bu am solo surtout ki nga xam ne moo ko jiite muy Fatima dafa mosoon a ñëw suñu site fekk ñu entraîné parce que ñun tamit dañoo nekk ci organisation bu mel ne bi spécial olympique Sénégal léegi mu ñëw mu wax ma ko ma ne ko loolu dañ koy d'applaudir à 100 pour cent parce que tamit luy yëngu ci wàllum xale surtout des enfants handicap loolu day am solo ñu ñëw teewee ko waaw di wax tey nag mbette la am fekk fi xale yi. ñu ñëw ak parents yi ñëw xam nga tey boo ne euh, ñun suñu principal objectif sport la mais tamit santé da am solo parce que boo amul wér yaram doo mën a def sport parce que une vie saine dans un corps sain moo tax tey ma am mbégte tamit ñëw fi di jaajëfal macha allah. ok Ismaïla Fati. Fati waay Ismaïla. yi nga yi xam effectivement waaw. effectivement xam nga déplacer xalé dafa metti surtout ñu ñu yàgg ci milieu bi des fois dañ ma waxé dama wo suma responsable de site mom tamit mo wa direction wa direction daal di koy accorder si laa woowee les parents avec la complicité de lui ma wo parents wax len ko ñom ñu d'accord ci à 100 né dañuy ñëw assister ci affaire bi motax tay affaire bi démé ni wa maa ngi leen di fay ok. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay. tour bi nan la. man Babacar Thiam la. Babacar Thiam. Mm-hmm. gis la tey nga ñëw ci événement boo xamante ni euh, dañ koy mm-hmm. waaw macha allah vraiment di am mbégte ndax euh, boo nee xale rek wax nga ëllëg ndax ku ne xam na ni xale liñ naan olof naan gune mooy ku mm-hmm. te jàpp naa ni xale yi nga xam ne dañoo amee liñ naan. handicap maanaam amee laago nañ ko mën a waxee dañ leen war a bàyyi xel dañoo bokk société bi donc boo demee école di nga gis xale yuy jàng macha allah ndax xëy na amuñu benn jafe-jafe ci seen wàllu cër seen wàllu wér-gu-yaram mais la plupart ngay seetlu xale yi amee handicap ñu ngi xaw a féete ko de xaw leen des si ginnaaw man loolu jaaduwul ndax ci lañ bokk ay être humain lañ ay doomu aadama lañu am waajur comme ñëpp kon ñi suñuy doom di suñuy jarba di suñuy njaboot kon jàpp naa dañoo bokk si ñun kon war nañ def lépp lu ñu mën ñun pour mën leen Euh, intégré mën leen maam dugal ci askan bi bay leen ci lépp ci surtout wàllu wér-gu-yaram macha allah. activité bi daal waaw ñun ay ndaw lañ dëkk ci réew mi vraiment nekk ay acteur communautaire mm-hmm. donc mais wax dëgg yàlla tout ce qui surtout xale lu jëm ci xale daf ñuy yitte daf ñuy concerné suñu jigéen Fatima Diallo vraiment mën nañ ne moo initié lii invité ñu wax dëgg yàlla wax ñu ko lu yàgg sax ñun tamit ñu def suñu matuwaay lépp lu ñu mën muy yëgal ko askan bi sensibiliser si askan wax leen kat tey li dina fi am ñu ànd ak ñenn suñu waa gox ñëw pour taxawu leen jàppale leen waaw macha allah nañu ay xale nañu consulté wu xool seen yaram dina nekk li nga xam ne ne profité seen parents ñu mën a bàyyi xel baax seen njaboot macha allah asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp dañu ñëwul dañu ñëwoon fii pour consultation gratuite waaw dañu woowoon fii pour consultation gratuite waaw sama doom laa indi woon waaw consulté na ba pare jox nañ ko ordonnance am waaw maa ngi woo képp koo xamante ni feebar na tam bëgg a consulté wu mën na ñëw consulté te du fay dara. salaamaaleykum. fille de nuyu ñep di gërëm di euh, euh, pour deux choses la première je suis venu pour soutenir une nièce une sœur qui est la présidente de l'organisation CADH euh, de la commune d'arrondissement de Keur euh, d'autre part, je suis venue en tant que directrice d'école, en tant que aussi parent d'élèves euh, de l'école du groupe scolaire Baïganao. Bien, euh, c'est juste pour sensibiliser les parents, parents de l'enfant handicapé, surtout les mamans, surtout les mamans, de bien veiller sur la santé et l'éducation des enfants. Euh, aussi sensibiliser les directeurs et les directrices d'école surtout euh, qui euh, reçoivent les enfants handicapés et les enfants non handicapés pour qu'il n'y ait surtout pas de stigmatisation, de frustration entre les handicapés et les non handicapés. Oui, c'était votre relation, non, euh, ma relation avec euh, l'association. Je suis venue toujours pour soutenir une sœur, une amie de longue date qui est la directrice, la présidente de l'association, une femme vraiment battante. Oui. Bon, je l'admire beaucoup. C'est pour cela, voyez, avec le manque de temps, mais je me suis dit que je ne pourrais pas je ne pourrais ne pas venir pour soutenir ma sœur, vraiment. Je l'encourage. Euh, je m'appelle Madame Abidiop. Ouais, félicitations et encouragement à la présidente, vraiment. Mention spéciale à elle. Quelle réaction, hein? euh, di sant di gërëm rek waaw ñaari fi benn bi pour soutenir sama doom sama rak Moy présidente association bi waaw loxoom mi ngi ci jàppale xale yi mi ngi ci lépp man nag en tant que directrice d'école ak en tant que yaay euh, damay ñaax yaay yi pour ñu gën a góorgóorlu ci jàngu xale yi ak seen tamit wér gu yaram euh, di ñaax tamit directeur ak directrice su école yi. Euh, pour mu bañ a am xàjj ak seen ci xale boo xam ni yàlla dafa def ci moom laago ak xale boo xamante ne tamit euh, amul benn laago ñu bañ a am xàjj ak seen kii lii la kii la la ñu jéem a xool nu ñuy uufe ñëpp jaboote ñëpp xale yi ñëpp nekk ay frères et sœurs ci biir école bi jërëjëf. jafe-jafe nga xamante ne ñun ko dund ci biir école yi ak association bi am na carte yoo xamante daal nañ ko joxe. Mm-hmm. est-ce que yen yéen a ngi ciy liggéey association bi pour bu dee école am na ay enfants waaw euh, ñaar ñaar am na fa am na ñaari enfants handicapés xam nga parfois handicapé bi tamit di nga gis xale yoo xamante peut-être euh, dañuy am retard ci ci parole bi am xale yoo xam ne dinañ am tuuti retard euh, mental am ñoo xamante ne dinañ am dinañ am handicap physique mm-hmm. waaw xam nga parfois tamit école yi kii bi. Euh, bu fekkee ne école bi dafa nekk à étage marche yi pour xale yi yéeg dina xaw a poser problème euh, carte de membre yi tamit ku ci mën a jàpp nga jàpp rek. moom am na yu mu ci doon ñu mais ñi ngi koy xaar ñi ngi koy xaar incha allah. waaw parce que moom lu mu nekk rek dinaa ci nekk incha allah. Euh, salaamaaleykum maa ngi tudd Mamadou Sarr. Je suis directeur du CPRS bu Massar centre de promotion et de réinsertion sociale bu Massar en même temps aussi suis euh, le point focal institutionnel du comité départemental de la protection des enfants donc euh, di avons mbégte à contentement Nous avons journée bi nga communauté de l'ambassade des enfants handicapés Nous avons organisé di aussi le tout préfet donc euh, mon fi mon fi yebal di leen mais aussi di leen jottali ay encouragement am mu journée bu am solo journée de consultation gratuite pour que la population bi soxla nañ ko donc bu ñu amee association yu mel am xalaat bu melni donc lu ñu ti japp dañ koy bàyyi même bu dé weekend sax dinañ ñëw woné suñu suñu tiofel d'abord ci association bi mais on est aussi magnifier liggéey bi nga xam association bi mu ngi koy en faveur des enfants handicapés man mi c'est pas la première fois mu ñëw di fekk seen activité donc mu nekk euh, ay liggéey yu am solo mais aussi di wax ne ñoom it dañoo bokk ci comité départemental de la protection des enfants euh, di fa liggéey liggéey bu am solo journée bi vraiment ni ma bi ma ñëwee li ma fekk dal na sama xel ba incha allahu rabbi dinaa ko jottali kilifa gi wax ko liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a koy def pour population yi mais surtout nag pour tout tànk yi nga xam ne dañoo amee waay laago donc di si gërëm bu baax euh, Fatima mi nga xam ne moom moo nekk à la tête je pense aussi euh, médecins yi nga mais aussi population je pense que war nañ si encore si commune mais aussi de lancer un appel aux communes aux maires vraiment association à parce que nous avons liggéey chef de service donc nous accompagner nous suivre mais commune mais bu manti mënti madame les six communes yi nekk si Kër vraiment maa leen un appel vraiment nous jàppale association parce que l'I aussi c'est pour euh, les populations donc lii lépp dañ koy def parce que engagement le patriotisme vraiment nous am contentement bu baax pardon voilà je m'appelle euh, Mamadou Sarr je suis euh, le directeur du CPRS de Kermassar, le centre de promotion et de réinsertion sociale de Kermassar par ailleurs aussi je suis le point focal institutionnel du CDP, c'est-à-dire le comité départemental de la protection des enfants. Donc je vous transmets tout d'abord euh, les salutations du préfet de Kermassar ainsi que ses encouragements. Euh, je suis venu ce matin, j'ai trouvé une équipe vraiment très engagée autour de cette activité-là qui est, une activité importante, une activité essentielle pour les populations, euh, c'est-à-dire une consultation gratuite. Donc je pense que ce sont des initiatives qu'il faut toujours euh, refaire au bénéfice des populations. C'est l'occasion pour moi aussi de lancer un appel euh, aux communes, aux maires de Kermassar, donc euh, d'accompagner et d'appuyer ces structures-là, parce que tout ce qu'ils font, c'est au bénéfice des populations et je pense que c'est important. En tout cas, je ne manquerai pas de rendre compte fidèlement le préfet de tout ce que vous êtes en train de faire. Hein. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à vos activités mais je pense que euh, la, communauté de l'ambassadeur des enfants handicapés est une association qui mérite d'être accompagnée. Inch'Allah, on fera tout euh, vraiment pour porter le plaidoyer euh, aux autorités, Inch'Allah. Merci. Assalamu alaikum, ami. Je m'appelle le docteur Mamadou Moustapha Manga. Je travaille au centre de santé de Kermassar. Et je suis médecin là-bas et aussi je m'occupe de la consultation générale. Et de temps à autre, nous, recevons des enfants handicapés pour établir des certificats médicaux pour égalité de chance. depuis 2016, on le faisait, on, le faisait gratuitement. Bon, on a fait euh, beaucoup d'enfants, mais quand même qui pour bénéficier des cartes d'égalité de chance cette carte pour l'air permettre d'obtenir des, bourses sociales et aussi de bénéficier de certaines prestations comme le transport public ou bien aussi de, de bénéficier quelques aides pour la, santé et autres. Bon, aujourd'hui, nous sommes invités à consulter ces enfants gratuitement. Malheureusement, beaucoup d'enfants n'étaient pas venus on a consulté environ moins de 20, enfants avec leur maman. Bon, des, enfants qui présentaient des pathologies qui ne sont pas très graves qu'on a pu gérer. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de, médicaments à, les donner, mais, mais on les a prescrits uniquement des ordonnances. Donc, comme c'est la première fois, bon, cela n'a pas été vulgarisé l'information n'était pas, en tout cas, partagée. Bon, peut-être aussi les prochaines fois, on va essayer d'organiser un peu plus, ou bien d'appeler aussi des, appuis, certains infirmiers, pour donner, certaines prestations. Parce que les enfants, euh, on doit les assister aussi, bon, avec des consultations gratuites. Surtout, leurs, leurs parents sont des mères démunies qui ne peuvent pas les prendre en charge aussi entièrement. Quoi. Bon, aujourd'hui, je, suis avec euh, certains camarades qui, qui, sont venus nous appuyer. Comme c'est la première fois, nous sommes au nombre de trois. Bon, il y a monsieur, vous présentez. Je suis infirmier d'État Donc, euh, joxal joxal kilifa yi joxal kilifa yi. léegi kilifa yi rek joxal kilifa yi rek. léegi lan mooy sa joxal kilifa yi rek gën a kilifa yi rek. sa taxawaay tey bon asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen remercier vraiment ci initiative bi vraiment am na solo quoi donc ñun moom dañuy ñëw ànd ak sunu euh, monsieur euh, Manga mm, médecin chef donc vraiment di ko remercier ci. accueil bu ñu def donc euh, dañu ñëw accompagner ko ci liguey bi vu que ñun ñoo ngi en cours de formation n'a pas encore vraiment terminé donc vraiment ñëw appuyer leen donc comme c'est une première fois donc euh, je pense que comme nous ko waxé rek gul donc euh, dañuy ñaan yalla aussi chaque année mu gën di vraiment am doole di yaatu ba ñëpp sentir ci seen bopp parce que les enfants handicapés dafa nekk ñoo xam dañu soxla dimbal quoi donc bu ñu am ñoo xam dañoo porté wu loolu di leen jàppale donc mënuñu def lu may euh, sant leen si gërëm leen si ñëw ànd si ak ñoom aussi accompagner leen donc ak sunu ay autorités comme ñu ko donc vraiment ngi remercier aussi ñëpp di remercier aussi fi muy institut élite santé donc euh, di remercier aussi tout le monde vraiment. tant que yow acteur bu nekk ci santé yaram nga gis wax enfant handicapé mais nit ñi ñu dem di saytu seen yaram. yow lan ngay yëg boo gisee tey ñu organiser ba mel ni tey. waaw comme lu ma wax rek sant yàlla quoi parce que santé moom je pense que mooy lépp koi wér-gu-yaram donc soo ko amul munoo munoo munoo def dara kon donc vraiment di waxaat ñëpp nañu teel a jóg euh, vraiment di saytu di saytu seen wér-gu-yaram surtout xale yi xale moom yaakaar naa ne mënul lu bari donc yow yow muy parent am di waajuram yow yaa man di ko veiller à tout le temps di xool santé di dem hôpital aussi vraiment di ko saytu dal je pense que la leen ni conseillé on merci beaucoup. Nous ñu lay fay. ñu euh, je suis venu comme prestataire de santé accompagner mon doyen docteur Manga à qui on travaille longtemps depuis au niveau du centre de santé de Kerbassar. Ah, je suis venu juste pour l'appui euh, de, la consultation gratuite. Ah, di initiative de qui dit qui dit la santé dit tout parce que du fait des des enfants yi sont des des enfants vulnérables ça fait partie des acquis à qui contribuer quoi moi je suis venu gratuitement comme étant santé comme invité pour appuyer, comment dire, l'accompagner le doyen Manga pour euh, cette belle journée. La relation ngeen am ak acteurs yi nga ñu ko organisé madame la présidente. Fatima madame la présidente Fatima c'est une sœur boo xamante elle est elle est travailleuse. sœur la aussi elle est dynamique. xam nga euh, état devait contribuer sur ces ces ces dames là. parce que c'est une dame d'affaires. du fait d'organiser des trucs.

ay ay ay ay ay ay ay papaay lañ waaw ah, tey bu ñu gisee benn xale bu am benn ah, déficit handicap mosala euh, en tant que euh, prestataire de santé daf lay xaw a daf lay xaw a enthousiasme ko daf lay xaw a metti daf lay xaw day xaw a triste sa boor lu ñu mën mooy ñun indi suñu luñu luñu waaw waaw di nga am yëg-yëg bi yëg-yëg bi di nga ko am mais nag léegi lépp lépp lépp nag euh, autorité yi ñoom ñooy war a jël en charge loolu à travers la commune le gouvernement nous aussi les dames qui sont prêts à travailler comme celle-là Nous aussi nous les leen qui sont ci pour nous contribuer euh, au au niveau de ce pays.